asalaamaaleykum le jeune maa ngi lay dikkee fi nga xam ne foofu laa tolloon ak yow ci jaar-jaaru suñu jigéen boobu nga xam ne tey jii yàlla def na ko muy kilifa gu mag ci li nga xam ne mooy euh, activité fëgg jaay pour que tey jii mu mën a doon loo xam ne mën na la leeral ci sa yoon parce que àddina lii rek la nañu dollee kunte jigéen boobu fa ma yemoon ak yow mooy ba ko borom këram joxe cinquante mille mu jàngat. ne man dinaa commencé dem jawbe parce que moo doon li nga xam ne moo jàppandi ci moom parce que ay nit yoo xam ne xam na leen ñu ci yëngatu ñuy jaay loo xam ne ay jëfandiku la yoo xam ne jigéen dina ko soxla te bu nattee li nga xam ne mooy marché am dina ko mën a jaay ci li nga xam ne moo ko wër mu yëngatu ci yëngatu boobu mu ciy liggéey yàlla defal ko ci fatku liggéey bi dox macha allah mu dem ba nga xam ne am na dayoo ba ñëpp a koy gis famille bi nga xam ne moom la nekk muy sa belle famille ñu commencé di ko gis benn bët maanaam bët boo xam ne c'est normal bu yàlla àttee nga yëkkatiku alors am na lu bari yoo xam ne ay yaakaar dafay commencé di taxaw. xam nga ñun suñu structuration sociale tey bu takk amee mbaa ngénte am ñu am luñ ko mën a cërale mu wane boppam ci am-am loolu nag bi mu ko jàngatee indi na friction maanaam indi na problème avec sa belle famille parce que moom loolu. gannaaw fa mu depare ak fi mu yëgsi ca dara mayu ko ko lu dul rigueur ak discipline bu mu am ba xaalis bi nga xam ne lépp mu ngi koy gagné di ci yëngatu xaalis boobu daf ko réinvestir ci business am am ci jom am ci fulla yàqul joxul kenn xanaa vraiment dundal business am pour mu doon loo xam ne lii dina mën a doon lu dëgër mu nekk ci loolu donc lii ñu ko bëgg a teg mu doon loo xam ne d'accordu ci mu indi friction indi jàmmaarloo waaw léegi loolu bi mu amee jàmbaar da ngay xam ne àddina gis nga bu problème di am day fekk yaa ngi màgg gis nga nit toujours bu desee ci zone de confort deful dara mu doon ko yaacaaral kenn yaakaaru ko ci dara problème du am mais boo demee commencé liñ naan yaa ngi fés yaa ngi tekki bu boobaa problème yi commencé parce que dafa am situation boo nekkoon nga jaar yëg si ci benn niveau bu bees bu nga xam ne sa manoor yëg si na la fa taxawaay boobu nag da ngay jànkoonteeg yeneen problème yu bees te li nga xam ne moo ko gën a mettil ki nga xam ne mooy boroom këram tam gaa moom moo ko jàppale moo ko jox fond de départ moo ko bàyyi mu dem liggéey yi mais soxla woon na pour tey ji taxawaayam bu bees bii famem bii mu profité ci kon ndaw si bu téye loxoom ne du ci def borom kër bi xaw na ci indi problème ba lii xaw na yëngal seen sëy soxna si dafa am benn xarit bu nga xam ne yàgg nañu xarit boobu yàgg bëgg yëngatu mais mënul yëngatu parce que boroom këram bëggul muy def commerce bii lii amee te muy exemple boo xam ne wax dëgg yàlla bu fés la xaritam bii ñëw gis ko ne que dama bëggoon nga dimbali ma ci sama jëkkër pour nga mën ko convaincre pour mu bàyyi ma may ànd ak yow pour ñu mën a liggéey nga wan ma liggéey bi ndax ma man ci yëngatu yàlla àtte noonu mu ko waxee ba mu demee gis seen boroom kër boobu mu waxtaan ak moom kooku ne ko lii de yaa ma ko mën a ñaan ma may la ko parce que kii bëgguma woon mu commerce parce que xelam masul ubbeeku ci commerce te itam bëgguma ko bàyyi muy génn di dem di lijjanti ji waaye yow am naa ci yow confiance pour mën la ko bàyyil ndaw si noonu ñu ànd mu wan ko yoon bi wan ko liggéey bi jàppale ko am na ci sax ay marchandises yoo xam ne jox na ko ko pour man koo dimmale ko pour wax leen pression sociale ni mu toll kii yàlla may ko tey ji manoore ci benn mbir ñi nga xam ne ñoo ko wër te daa jënd ci moom gisuñu dara lu dul bëgg a def la même chose que moom muy mbir mu doy waar parce que tey jii ci suñu structuration sociale dafa doon loo xam ne lu ci feeñ ndax am na ñu bari ñoo xam ne amuñu projet amuñu idée xam nga lan la ñu am bët bu ñu xool pour kenn mën a réussir ñu def loolu et bëgg ko def à cent pour cent maanaam copier ko amuñu sax kersa pour fi nga xam ne foofu nga teg sa table ñu ñëw sësali seen table ak sa table pour di jaay la même chose te kooku sa xarit la te kooku sa dëkkandoo la te kooku sa mbokk la réalité la boo xam ne duma ci mën a sori mais li ma la bëgg wax mooy na nga xam ne liggéey rek moo am solo na nga xam ne comme niñ koy waxee ku nekk sa wërsëg ngay dax mais aussi ñu xam ne ku ci nekk yaa ngi dox sa intérêt donc loolu bu mu doon loo xam ne dinañu dévier ci li nga xam ne mooy suñu objectif suñu jigéen bi def na la mu mënoon def ci ngor ci mbëggeel ci générosité pour jàppale kii kooku na mu gisee ak na mu doxalee beneen mbir la mais moom dox na ci li nga xam ne moom la war a dox te loolu rek moo am solo parce que cappaandaw ko toujours liñ naan résultat yi du doon benn waaw la jeune dinaa ñëw ak yow la suite de cette histoire continuer ànd ak yow ci jaar-jaaru suñu jigéen bi mais di ci xaar say commentaire yoo xam ne tey jii mën na ñëw indi ay solution mën na indi gindee ko ci suñu communauté ci ay problèmes yoo xam ne dinañu gàllankoor ci lu bari ni ma ci waxee nii ci benn xam-xam bu ndaw yow si sa xam-xam bu géeju nga mën ko booleeg sama bos communauté bi man ci jariñu